jaara di ko sargal waaye tam di ko ndokkeel uh, ci bés bi waaye tamit noonu la ñuy jaajëfalee ñi nga xam ne nag ñooy les femmes dévouées uh, pour la cause jiital ci nag uh, ki nga xam ne nii mooy soxna Fatima si di présidente bi waaye tamit teg ci ki nga xam ne moom mooy yaay tabarakallahu ak soxna Haja waaye tamit docteur Maymuna tabarakallahu moom itam ñu ngi koy nuy bu baax a baax ak it soxna Ndey Kumba Jeen moom itam ñuy les femmes dévouées pour la cause taxawal guddi gu mag goog nga xam ne ni sargal nañ ci ki ñu amul kudul moom muy ya cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy kuy njaboot rek tabaarakallaahu ci bés boobu boo amul ngant yaa nga woon tiwaa woon wuy ji waaye tamit ñi amoon ngant nekk ci biir réew mi ñoom itam ñi ngi ko jàppoon ci euh, macha allah euh, chaîne YouTube euh, les femmes dévouées pour la cause ngir bañ leen a rëcc ci guddi gi waaye rawatina nag ñi nga xam ne ñoom it ñi ngi ca biti réew Euh, nekkuñu ci réew mi ñoom itam jour boobu ñëpp rek ñu ngi scotché woon moo tax tey nag euh, ci seen émission sonorité sacrée dañuy dellusiwaat euh, ci les temps fort yi nga xam ne nii jot nañ ko dund macha allah ci bés boobu nga xam ne ci guddi googu ñuy sargal suñu kilifa Mawlaay Cheikh Seydi mu Moustapha Sy mu nekkoon le juin bi nga xam ne ci la ñu génn foofa ca Tiwaawoon mbokk yi seen émission sonorité sacrée ñi ci ànd ak suñu sponsor officiel kooku nag buñ ko waxee mooy doomu borom bame bi kii mën ci soxla yi waaye tamit euh, gaaw ci euh, poche yi Euh, kooku mooy kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy miin ngeen ñuy teg ay émission am ci Mourchid TV waaye itam numéro yaa ngi noonu affiché au bas de l'écran mën ngeen cee woote képp koo xam ne bëgg ngaa dem ci kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy ak soxla bu la mën a yëkkati rek wooteel ci numéro yi di nga jot ndaw ñi nga xam ne nii ñoo koy taxaw ci wàllu appel téléphonique yi ñu mën leen a gindi wax leen ci ban yoon ngeen di jaar ngeen mën a jàkkaarloog doomu borom bàmmeel bi ngir soxla bi leen yëkkati yàlla mën ci def euh, dëppoo euh, ba saafara mën cee am mbokk yi macha allah nag euh, dañuy delluwaat euh, fële ca Tiwaawoon dundu les temps forts wala les moments forts solennels yi nga xam ne nii euh, jotoon na am ca guddi go foofa ñu xool entrée wu Mawlaay Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy ak waa firqatu Tawfiq Junior ci way wi nga xam ne wayal nañ ko ko mu dellu ci wàllu anniversaire bi waaye itam dellu ci njukkal ko dellu ci jox ko jaaraama bi nga xam ne nii Ah, tabaarakallaahu ah, yeyoo na ko ndax li nga xam ne liggéey na ko ci diine li nga xam ne liggéey na ko ci penc li nga xam ne tam liggéey na ko ci wàllu tariqa li mu liggéey ci wàllu social li mu liggéey ci wàllu spirituel waaye tam li nga xam ne liggéey na ko ah, ci kër maamam ak ndono li nga xam ne am na ko ci kër maamam te ndono lool tey mu dundool ko tabaarakallaahu ba Tiwaawan ku fa dugg rek buntu këram ngay njëkk a jot macha allahu rabbi loolu nag tawfiq sunu borom la kon ñu ànd waa firqa Euh, li nga xam ne moo dellu si woon ci wàllu arrivé Mawlaaya Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy dellu si ci plateau bi. njabootuk Seydi Mouhamadul Moustapha Sy jërëjëf bi yow mi ñu nàndal ci teraa ngay bindu Maam Maodo suñu maam Seydi Hadji Malick gannaaw ba nga noppee ak ñun ci tey si tey ndaw yépp di wax rabbun tabaraka suñu sang bi moo ñu tàbbal ci leeru xilasi zëhëb bu suñu maam Seydil Xaaji Si suñu maam bi nga xam ne bàyyi ñu dara ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa ba taxit tey ndaw yépp naan at mim la naa duran mbokk ñu jukki ci lenn ci baat yu am solo yoon noonu euh, mbokk yi waa firqa Tawfiq Junior euh, seen participation ñoom itam euh, ci bës bi mi ngi noonu ñu accompagner dugg si Mawlaaya Cheikh Seydou Mouhamadul si ak itam li nga xam ne moo aju ci wàllu xilaas bi waaye njukkal ko tamit ci anniversaire bi ànd kook mbooleem njaboot yi nga xam ne rek ñoo fa teewoon macha allah atu góor gi fees ci biir kër gi ba ci biti ba ci alentour yi macha allah li newoon ci biti sax mu ëpp li nekkoon ci biir. kon loolu am na lu muy feeñal di waneen rek am na koo xam ne euh, lu ñu ko mën di defal rekk ajuwul ci barab euh, ndax barab bu ñu mën a teew rek terewul euh, lañ fa war a def na mu ko waxee woon ca jotaay ba barke ba fa war a wàcc dana fa wàcc te am na barab yoo xam ne nag yenn barke yi jarul sax mu di fa wàcc kon nag bu barab toxoo tabaarakallaahu terewul cadre bi ak wërmbël bi la fa war a am rek muy contenu bi moo ci ëpp solo te tabaarakallaahu continue bi nag ñëpp dund nañ ko ànd kook mbokk yu baax yi nga xam ne teewoon nañ fa bégal ñu ci am solo yi nga xam ne ni ñi ngi koy def ñi ngi nuyu nag bu baax a baax waa Taïba de la part de Ousmane Gueye Ousmane Gueye nag macha allah am na lu muy waaj foofa ca Taïba ba 2 juillet yàlla na ko yàlla mottali te barkeel ko waaye itam ñu ngi ndokkeel bu baax a baax sunu mbokk Ousmane Ndiaye moom itam uh, ci gan gi nekk fii ci uh, kër gi tabaarakallahu yàlla dogal mu am gan kon nag uh, ñu ngi koy ndokkeel moom itam di seet soxna si waaye itam di leen ñaanal yàlla gan goog yàlla ko yàlla barkeel yàlla def ko mag waaye tamit def ko njabootu Mawlaaya Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si niki noonu mbokk yi rek lañuy ñuy ba tey ànd ak yéen delluwaat euh, fi nga xam ne moom mooy euh, Tiwaawoon euh, dundaat bésu 18 juin bi muy guddi goog nga xam ne ñu ngi ci doon sargal ma Mawlaay Cheikh mu xam la Sy te nag sargal bi benn guddi rek mënu koo dékku ndax itam at mi yëpp sargal la ci moom ndax li mu wax ci Yonent bi sallallahu alayhi wa rek moom la ñu njëkk sargal ca tanabbahu anna nuural xatmi lay lakumu euh, qad xalla fi xiimatin min atharil xiyami tabarakallahu nag loolu ca discours ba yaatu na nañ delluwaat ca foofa delluwaat ca kàggu yi euh, ngir gën koo mën a nafaraat waaye tamit gën koo mën a duññiwaat mbokk yi dañuy ànd dem seeti tamit koo xam ne nii daaw ñëwoon na Grand Théâtre moom it defoon participation bu am solo ren itam mu ñëwaat muy soxna Daba Baro bu firqatul euh, Fatimiya moom la ñuy dem seeti euh, le 18 juin euh, ca Tiwaawoon moom it ci prestation ci bés boobu nga xam ne ñu ngi ciy doon sargal Mawlaay Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ñu xool ci benn extrait dellusiwaat ci plateau bi. waxoon na ko daaw ca Grand Théâtre la 11 juin ren tamit ca Tiwaawoon le 18 juin mu waxaat ko te mooy taluñu ñu taluñu talu ñu ko ñu ko kooku mooy soxna Daba Baro bu ah, firqatul Fatimiyya ñoom itam macha allah ñu def participation bu am solo ci guddi googu nga xam ne ñu ngi ci doon sargal Mawlaaya Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy mbokk yi noonu la ñuy jaaree tamit ah, jaajëfal ñi nga xam ne ñoom itam ah, ci weeru juin bi jot nañ ci génne clip ñoom it sargal ci Mawlaaya Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha si mu doon tamit ay way yoo xam ne nii yëpp rek moom lañ ko duppee ah, xam naa tey moom dañuy def spécial euh, focus rek ci sargal bi waaye nag euh, bii di ñëw bu soobee yàlla ñu ñëw ci clip yi nga xam ne yëpp mbokk yi génnee nañ ko ci weeru juin bi tamit euh, way ko Mawlaay Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy ku ci mel ne soxna ayda mbay nekk foofa ca Italie moom it way na way wu am solo ji jaaraama Serigne Moustapha Sy def ko clip ku ci mel ne tamit ki nga xam ne moom mooy El Hadj Ndiaye Euh, nekk foofa ca Ndar moom itam way na way bu am solo muy firqatu hilaali salaam ñu way way bu am solo duppee ko tamit euh, Mawla Cheikh Seyd Mouhamadou Moussa Sy mooy bu doon ne mu neex moom El Hadj ñu ngi koy ndokkeel bu baax ci way woowu waaye noonu la ñuy ndokkeelee tamit euh, ki xam ne mooy Saïd Nourou Ciss moom itam way na Mawla Cheikh Seyd Mouhamadou Moussa Sy moom it ci way bu am solo xam naa danañ ci ñëw tuddee ko ahlu safa Sofa moom it euh, incha allah ci yii di ñëw danañu ñëw ak euh, ci clip boobu ak Sayen Nourou sis ci wayu am solo boobu nga xam ni way na ko Mawlaay Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy euh, niki noonu waa firqatu Chamsu Fanil Murshidin ñoom itam soxna Ndey Marème fay moom it way na way wu am solo tuddee ko yaa Moustapha si euh, wayoon nañ ko ci atam waaye ren ñu def ko euh, clip euh, ci anniversaire u góor gi ñoom itam ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci way woowu xam naa danañ ci ñëw ci émission yii di ñëw niki noonu tamit la ñuy sargale waa firqatul maktumiya ñoom it nekk ca Parcelles Assainies ñoom it way Serigne Moustapha Sy jaaraama Euh, soxna Xadi ñoom it ak mbokkam yu baax yi nga xam ne nii euh, ñoom la ko bokkal xam naa it danañ ci ñëw ci euh, émission yi di ñëw niki noonu tamit ku ci mel ne Serigne Modou Sow moom it def na clip bu am solo tuddee ko way naa la way ci Mawlaay Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Serigne Modou Sow d'ailleurs sax def na participation am ci euh, le 18 juin bi muy guddi gi ñuy sargal Mawlaa Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ci way boobu nga xam ne mooy duma jël kenn euh, jënde la kon Serigne Modou Sow yow it dinañ ñëw ci clip bi xam naa ci émission yi nga xam ne euh, mooy ñëw ci sunu kanam niki noon tamit Mansour Diop Al Fannaan bu Chamsi Fanil Mourchidine moom itam way na Mawlaa Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy génnee ko clip tuddee ko borom yan bi Euh, moom itam tabaarakallaahu ndax yen yi benn rek la waxul boroom yen yi waaye dafa ne borom yen bi kon mooy wane ni yen bi benn la te kenn rek euh, moom moo koy yennu Mansour Diop ñu ngi lay jaajëfal yow di la ndokkeel ci clip boobu moom it danañ ci ñëw ci émission yi nga xam ne nii euh, moom mooy euh, ñëw bu soobee yàlla kon mbokk yi yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mbokk yi yéen a ngi suivre seen émission Sonorités Sacrées euh, wéy leen di abone suñu plateforme digital muy YouTube bi di Facebook bi di Twitter bi ndax gis ngeen bi ñuy waajal rek guddi sargal gi ci plateforme yooyu yëpp mbokk yi am na ñoo xam ne tey dem nañu ba teewee ko guddi sargal gi te foofu la ñu amee seen carton d'invitation pour mën a euh, assister li nga xam ne moom mooy guddik sargal gi kon tabaarakallaahu ñu wëy di abona rek euh, di activer cloche de notification yi waaye tam di aimer vidéo yi tamit euh, di ko partager ndax loolu tamit dana wane ni ñun ñëpp rek fidèle nañu ci la chaîne des valeurs mbokk yi noonu la ñuy woyee ba tey ànd ak sunu sponsor officiel muy kenn bugul euh, bu Serigne Moustapha Sy numéro yaa ngi noonu affiché au bas de l' képp koo xam ne rek bëgg ngaa dem ca kenn bugul bu Serigne Moustapha Sy wooteel ci numéro yi mbokk yi danañ la gindi gën la jox ay tegtal waaye itam gën la jox ay reeral euh, ci rendez-vous yi ak itam naka ngay def euh, def ba dem fa ak bés yi nga xam ne tamit ci lay amal rendez-vous yi ak bés yi nga xam tamit ci lay recevoir mbokk yi mi ngi noonu su ko defee nag dañuy delluwaat euh, fële ca Tiwaawoon euh, dundaat euh, guddik sargal Mawlaay Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ndokkeel ci nag at yi nga xam ne yëpp teewoon nañ fa xam naa tey émission bi du ñu mën a indi ñëpp waaye ñu jukki ci ñenn rek yeneen jotaay ñu gën ko yaatal waaye ñu ngi ndokkeel bu baax ki nga xam ne mooy Soxna ba jaata di ndokkeel tamit Mouhamad Seck Melo moom it ci participation am waaye tamit noonu la ñuy ndokkeelee mbooleem ñi nga xam ne rek ñoom itam euh, jotoon nañu participer ci guddi googu dañuy dem seeti nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa yaakaar yi ëllëg ànd ak sunu mbokk Abdallah moom it euh, ku ne xam ne ni way na way wu am solo Mawlaay Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha si euh, su ko defee kon dañuy delluwaat ci waawoon xool loolu del dellusiwaat ci plateau bi. bu bii ni nii suñu yoon ba sukura ba muy Mustafa day mu leer jógul wat naa ni bi maam Babakar Si naan nanga dox maa ngi toog di xaar ku la kar sëriñ Mustapha sëyeen woyoful ma la yeen te déggu nga sëriñ Mustapha si yaay suñu bët Moustapha Gueye démb bi ci si gërëm na la maam Seex Tijaan Si ñaanal na la sunu capitaine ni waaja si démb na amoo moroom maam ñëpp di wax amin si yal na la mooy bët bu ay noon yi yal na sooy yal na yàlla sàmm la waaw seetlu ay si yal na la mooy bët bu ay noon yi yal na sooy yal na yàlla sàmm

Moustapha yi Serigne yaa ñu doy fii ak leen Serigne Moustapha Sy yaa ñu doy fii ak leen Aïcha Serigne ultime koo donduwul pour tey ko la ko dem ba l'héritier ultime de tous koo donduwul pour tey ko la ko dem ba bayu yaa déggu ma ne Serigne Moustapha Sy yaa nu dawi fi ak ma yaa nu doy fi ak tout le monde le monde yaa nu doy dem tàngul wexul dem dafa muñ moo tax mu am Seydi Moustapha pour yàlla jox na ko may mi noonu euh, Serigne Moustapha Sy yaa ñu doy euh, fii ak euh, fee loolu nag Abdallah moom la wax bu yaakaari ëllëg ànd kook ñi nga xam ne rek teewoon nañ fa njaboot gi yëpp macha allah ñu ànd sargal euh, ki ñu amul kudul moom muy Mawlaaya Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy noonu lañuy ñuy delluwaatee ba tey euh, nuyu tamit euh, maam Babacar si moom itam ndokkeel ko sargal ko ci bës bi waaye Pape Cheikh Sarr moom it ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ndokkeel di ko sargal waaye niki noonu tamit ñi ngi nuyu bu baax a baax soxna Ummu moom itam macha allah soxna Ummu Xayri si bu Serigne Moustapha Sy moom it sargal ko ndokkeel ko ci bës bi ak mboolem sang yu baax yi fa teewoon rek ak mboolem autorité Euh, politique yi nga xam ne tam ñi ngi fa teewoon ak suñu mbokk journaliste yi ak euh, suñu mbokk yi nga xam ne nii ñi ngi fare tamit euh, ci langue politique yi ñoom ñëpp rek ñi ngi leen di ndokkeel macha allah ñu àndoon ca bés ba ànd koog Mawlaaya Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy waaye njukkal yëpp ak sargal yëpp ak ndokkeel yëpp ci moom lay dellusiwaat macha allah yi ndax Sëriñ Moustapha Sy bu ñuy wax musique afro orientale fii ci Sénégal ku ñu war a delloo njukkal la moo tax nee naa bés ba keroog mboolem artistes ya fa teewoon rek war nañ ko delloo njukkal waaye nag war nañ delloo njukkal waa les femmes dévouées pour la cause ndax ku ne xam ne bés ba tabaarakallahu scène bi nga xam ne nii euh, moom lañ leen fa defal waaye ku ne xam ne tamit euh, sonorisation bi nga xam ne nii moom lañ fa def mu doon loo xam ne ni tey soo ko doon wër danga koy gis ci festival yu mag yi euh, foofu nga koy fekk te ñooñu di ko def danañ ci dépenser euh, xaalis bu dul jeex ngir yàlla ak euh, prestation yi nga xam ne dañ ko fay amal comme loolu nag tey les femmes dévouées pour la cause ñu ko defalalee suñu artistes yi nga xam ne nii moom ñooy yëngu ci wàllu musique afro orientale te ñëpp ñu miin leen ci ëttu Mawlaaya Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy kon tamit wax dëgg yàlla ñoom it delloo leen njukkal lu war la ndax siggilaat nañu Euh, musique afro orientale waaye tamit gën nañ ko revaloriser waat waaye gën nañ ko joxaat tamit Euh, gëdd bi nga xam ne nii am na ko kon nag mu delluwaat tamit ci acteur yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu musique bi ñoom it ñu xamaat seen taxawaay xam ñoom ñooy ñan ndax itam Mawlaa Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy euh, dafa fexe ba réussir loo xam ne nii mooy nit ki boo ko teree dara da am loo koy jox mooy boo gedduloo yeneen xeeti musique yi nga xam ne miin nañ ko muy musique profane bi danga koy jox loo xam ne nii dana euh, dëppoo ak mission bi nga xam ne ci la nekk dëppook tamit cadre bi nga xam ne ci lañ ko tënk waaye dëppook tarbiya bi nga xam ne nii ah, ci la nekk kon it sunu mbokk artistes yi ñu rappeler leen ni seen mission bi njëkk mooy ñu wane ni ah, ci tarbiya la ñu nekk wane ni tamit ci ëttu kilifa la ñu nekk ndax itam ñàkkul am na ay taxaw seetlu yoo xam ne ah, def nañ ko ci te loolu danañ ci ñëw ci wàllu artistiquement loolu nag danañ ci ñëw ak musicalement mbokk yi dañuy dem seeti koo xam ne moom itam daaw ñëwoon na ren mu ñëwaat moom it mu nekk révélation doon koo xam ne it ngi liggéey ci wàllu musique afro lu am solo kooku nag mooy papp alindooy ñu dem xool euh, moom itam euh, benn extrait rek euh, ci li nga xam ne ni moom moo aju woon ci wàllu prestation ci guddik sargal Mawlaaya Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha si foofa ca mu nekkoon le juin bi nga xam ne moom la ñu génn ñu xool Pape alindooy del dellu siwaat ci plateau bi. fecci woo ko lëre waruloo sama mu jaar nga ca yoon wee sama mu jaaroon si Malick fecci woo kollëre waruloo ayca ñu dem sëy barakallah ayca loxo yi ci kaw nga xool ah ndeysaan ayca loxo yi ci kaw ndeysaan oh, wuy leen yaa Moustapha Sy ñoo ngi lay ñaanal ndax am nga maa lay ñaanal ah sëriñ Moustapha Sy ñun de ñoo ngi lay ñaanal ndax am nga mando yaay borom iman ñoo ngi lay ñaanal kon eh, noo kuy tooñoo yow yaay ki nu jàlle yaay sunu soppe si yow yaay chef de guerre woy leen ñoo ngi lay ñaanal ah, jàmbaaru diine la kii soppe l'islam la sang gamara si yow yaa di borom may woy leen yaa Mustafa si ñaanal doo ku doom di féete baay féete nga fa maam Cheikh raw nga ci góor ñi yow am moroomo ndeysaan aw leen ñoo ngi lay ñaanal ndax am nga maando yaay borom iman ayca loxo ci kaw ayca waa bor bi ayca ah ndeysaan jërëjëf ah cosaan jërëjëf ayca bi daa yem ci yow doxewuloo ko teñ bee teñ bee ko taaral fecci woo kóllëre waruloo sa maam yee jaar nga ca yoon donnoo du mooy boroom te cër du mooy boroom gaynde du daw xare si Malick maama la waajal moom ma la nii woon ah xasir kañ nga may demal ka yéen baba ah ayca yéen ci yow xam sa cofeel ci ñun ci moo tax ba ñu xër ci yow Hey, I'm the man. voilà mi ngi noonu Pape Alioune Ndoye euh, ci yaa Moustapha si macha allah daaw euh, ñëwoon na ko ca Grand Théâtre euh, gannaaw gi tamit mu génne ko single gis ngeen participation am ren moom itam ci guddik sargal Mawlaay Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha si ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal waaye tamit di leen ndokkeel. ñoom ñi nga xam ne ñoom it ñu ngi yëngu ci wàllu musique afro waaye di leen xamal tamit ñi teew euh, teewaa leen lañu ñi nga xam ne tamit yàlla def na ñoom it jotuñoo euh, ñëw wala jotuñoo participer ndax itam ñëpp mënuñu euh, ñëwandoo waaye nag buñ defee at mu jot rek ñenn ñëw loolu tamit macha allah dana am solo wala it ñi war a ñëwaat it buñ ñëwaatee terewul du yàq dara ci mbir mi dana tax rek mu gën a am solo kon ñi ngi delluwaat di ndokkeel waaye itam di sargalaat di jaajëfalaat les femmes dévouées pour la cause waaye jiital ci nag euh, ki nga xam ni moom mooy euh, présidente Soxna Fatima si euh, macha allah ci taxawaayam waaye tamit ci ñi nga xam ne noonu la ko àndee ak ñi nga xam ne it ñoo koy jàppale di ko taxaw ci liggéey bi ndax it ku ne xam na ni fa ñu ko defee mujj ñu ko fa defee à l'espace de 48 heures ñu def ci lu mel ni def ci seen bu mel ni ak lumière yu mel nii macha allah loolu wane na ni rek taxawaay rek moo am solo. kon wala femmes dévouées pour la cause euh, ñu ngi leen di jaajëfal ci seen euh, taxawaay mbokk yi nag euh, beneen bi ci des mooy ñu laabirantewaat rek surtout ci li nga xam ne ni ñu ngi ko bokk di ko liggéey mu dellu ci wàllu musique afro orientale ndax itam léeg-léeg liggéey mën naa bañ a gis yenn yi waaye itam ñi toog di seetaan ñoom it am na yu ñuy gis yoo xam ne xëy na buñ ko waxee dana tax ba mbir mi Euh, gën a rafetaat waaye dana tax ba lu ñu war a jooyanti rek euh, ñu jooyantiwaat ko euh, bu ñu defee taxaw seetlu gis nañ ni prestation yi jàll yëpp macha allah waa firqa tawfiix ak Seyda Binta Thiam ñoom rek ñoo fi ñoo indi xasida boo xam ne dafa delluwaat ci mag ñi wala même bu ñu génnee tamit indi loo xam ne ni wolofal la gis nañ ni wolofal boobu dëppoo na booy xool ci wàllu not yi booy xool ci wàllu tempo musical bi booy xool tamit euh, ci wàllu ñi euh, nga xam ne noonu la ñu composé way yi di nga gis ni macha allahu rabbi ñi ngi def ñoom it taxawaay bu am solo euh, delloo ko ci loolu waaye ñi ngi woowaat sunu mbokk yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu musique afro orientale ñi ngi woowaat sunu mbokk artistes yi ci ni wayu solo wayu olof yi am na solo loolu waaye nag nañu delluwaat ci xasida mag ñi ndax itam musique afro oriental cosaan bi mooy fexe ba Euh, li mag ñi bind ñu jëlaat ko interpréter ko de ce fait ñi ko bëggoon a mokkal wala ki nga xam ne ni jotu ko teewlu dana gën a mën a teewlu euh, xasida bi waaye tamit mokkal gi xasida bi dana gën a mën a gaaw loolu moo tax waa firqa tawfiq gis ngeen ko ci xilaas bi ñu ngi dimbali nit ñi ci ñu gën a gaaw mën a mokkal xasida bi waaye noonu la ñuy ñaanee tam sunu yeneen mbokk yi ni wayu olof yi am na solo loolu baax na loolu waaye nag euh, mën nañu tagg kilifa gi sargal ko delluwaat ci ñi nga xam ne nii jot nañ ko way wala jot nañu bind ci moom ku ci mel ne oustaz Jibril euh, moom it yàlla na ko yàlla yeesal yërmandeem ci moom bind na ci Mawlaa Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy loolu mën nañ koo jël way ko ah, ku ci mel ni tamit oustaz Hadi Niass am na xasida bu mu def ci moom ñu ci mel ne sunu mbokk yi nekk waa Mauritanie waa Noël ki ñoom it def nañu xasida ci moom ak ñeneen ci mbokk daara yi nga xam def nañu xasida ci moom yooyu nañ ko jël ñu liggéey ko ndax bu wooyee ci wàllu araab mooy gën a jege nga am tonalité wala nga am eh, tempo musical wala nga am sonorité yoo xam ne ñooy gën a jege afro oriental ndax bu dee wolof bi léeg-léeg mën naa ëmp peu a jege li nga xam ne moo dellu ci wàllu musique eh, profane bi te loolu am na ci yoo xam ne nii léeg-léeg ñu ngi ko ci faral di seetlu euh, muy daaw ba ci ren faral nañ ko ci seetlu kon yooyu itam ñu jooyanti waat ko euh, am na loo xam tamit ci ay parole ñu ngi ko miin ci wàllu musique euh, profane bi loolu ñun soxlawuñu ko yooyu itam ñu jooyanti waat ko ci biir ndax wayu olof yi léeg-léeg buñ ko Euh, recadré wul rek dana xaw a mën a dugg léeg-léeg un peu ci musique profane bi nga xam ne miin nañ ko ci réew mi euh, te ñeneen ñi di ko def kon yooyu itam ñu bàyyante ci xel xëy na ay taxaw seetlu la ñu gis rek ñun ñoo mën a euh, jooyante wante sunu biir waaye itam ñun ñoo mën a jàppalante sunu biir waaye ñi ngi ñaan ñëpp daal ñu delluwaat ci kàggu yi delluwaat ci xasida mag ñi delluwaat ci mbokk yi nga xam ne ni bu ñu bëggee woy kilifa gi am na ñoo am bind nañ ay xasida ci moom na ñu delluwaat ci yooya Euh, bu ko defee rek euh, li ñuy def mu gën a mën a méngoo waaye itam gën a dëppoo waaye tamit gën a jege euh, li nga xam ne moo dellu ci wàllu musique bi nga xam ne mooy musique afro oriental ndax su baat yi arabee rek même bu musique bi xawula jël kolooru arabe bi dëgg sax waaye danañ xam ne lii kat musique arabe waaye nag su baat yi nekkul baat yu arabe wala nekkul loo xam ne wala muy doon wolofal am na nu muy demee tuuti rek xëy na wàllu musique bi dana gën a jege li nga xam ne moo dellu ci wàllu musique euh, profane bi kon mbokk yi ñu bàyyante ci xel loolu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ndax it xam nañu li ngeen di def xam nañu euh, li ngeen di sonn xam nañu li ngeen di daj waaye terewul rek ñuy gën di defaat taxaw seetlu di gën di jooyantiwaat loolu tamit euh, dana am solo su ko defee ñu ngi jaajëfal ñëpp macha allah dañuy dem nag seeti ki nga xam ne nii moo génn Sénégal dem ba Algérie ci benn festival boo xam ne mooy Samma Soufi Euh, représenté fa Sénégal euh, waaye way fa xasida maam Cheikh boo xam ne bi mu ko woyee ba noppi dañu ne waaw kii moom euh, amul benn distinction buñ ko mën a jox bu dul wal wax ko rek ni ko yow yaay l'étoile de l'Orient bi nga xam ne nii jotoon nañ ko jox Umm Kalsum ci atam moom lañ ko jox kooku nag def na ay festival ci biir réew mi lu ci mel ne festival international du zikr participé na ci festival salam euh, participé na ci euh, def na pas mal de spectacle fii ci biir réew mi ak ci euh, biti réew waaye tamit dem na ci saal mag yi dem na ci li nga xam ne mooy conférence yi def na ci daje ambassade yi kooku moom mooy Seyda Mariama Binta Thiam mbokk yi ñu xool participation wu Seyda Mariama Binta Thiam ci le 18 juin ci guddik sargal Mawlaaya Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy dellusiwaat ci plateau bi Happy birthday. فاليقين يشع في القلب المعنت بالمحبة جاء هم مزرعوا هذا اليقين يشع TV yaa rabbi asbil alayna waa bila salami macha allah loolu lañ ko tëjee ah, ñu delluwaat rek ñaanal sunu kilifa mawlaay cheikh seydi mouhamadul moustapha si yàlla na ko yàlla may mu dund ah, balu ko soob yàlla defal ko tawfiq yàlla mottali ko yéenem yàlla sàmm ko aar ko waaye tamit ah, defal ko sunu capitaine moom it yàlla mottalil ko yéenem te yàlla téeñal ko yen bi yàlla lafal ko cat incha allahu rabbi yàlla barkel taxawaayam ak euh, liggéeyam ak yëngu-yëngoom ci wetu kilifaam waaye tamit sargal waa les femmes dévouées pour la cause yëpp jox euh, sargal yi yëpp Seyda Fatima soxna Fatima mu jox ko mbokk yi baax yi ko bokkal yëpp waaye sargal mbooleem njaboot yi nga xam ne rek macha allahu rabbi ñoom itam ñi ngi euh, bigee guddi googu moo xam ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci biti réew moo xam ñi teewoon ak ñi amoon ngant ak ñi sore ñëpp tabaarakallahu ñi ngi ndokkeel mbokk yëpp macha allah mbokk yi kon tey seen émission sonorité sacrée noonu la tolloon dañ leen di jox daje rek incha allah samedi bii di yow ah, bu soobee sunu borom ah, su ko defee ñu woyaat ak yéen ci clip yi nga xam ne tuddal nañ leen ko fi te mbokk yu baax yépp def ko ci weeru juin bi sargale ko Mawlaaya Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha si gannaaw ba ñu ko sargale foofa ca Tiwaawan ah, te it moom mooy borom sargal yi moom mooy sargal ki jara sargal Ah, tabaarakallaahu kon nag euh, mbokk yi ñu jox leen daje rek samedi bi di ñëw bu soobee sunu borom ngeen di am jàmm ñuy am jàmm ba samedi ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah